mooy indi wax ji jarut di ca dellu mooy xamne ne ak salam mom rek la bëgg nit ki nak buy oté jàmm yaaka na né do oté aw xay kuy oté jàmm jàmm la ngay bëgg jàmm jooju nak mom la bëgg bëggal ko ñëpp suma ma nit ñëpp am jàmm réew mi am jàmm te Sénégal amul nu Sénégal kenn mënut a met ba toxu ba toxu fu génn fu gën Sénégal wala fo demee do am lu yem lu am Sénégal kon nak man Cheikh Tidiane Khalifa Niass déclaré wu ma guerre tey déclaré wu ma guerre ëllëg te képp ku wax né man dama né dama déclaré guerre kooka moo sos ay waxam seet na mu ko bëggee ngir salteel walla ngir tilimal waaye duut lu ludut ki nga xam ne tey moo la fi yàlla teg muy Macky man de tuutuluma ko fonk naa ko naan ko ñaanal te xam na ci dara sama xarit la te itam xam na ci dara kon suñ ne damay déclarer guerre ñooña ñoo déclarer guerre waaye man déclarer ma man jàmm rek laa wote li nga xam ne moo andi yëf yi de nag ah, sama doom laa sant mu jiitee ñu ñu bëggu def nu fi noonu moo ne bañ ne du ma ko nangu te it sama waxe démb ñu rek ba tey moom lay dello wax wax ne sëriñ am lu may juróom wala ñeen jàkkal ya téere ba tool ya taalibe ya loolu lay am ñu loolu naal ku ñu bàyyee suñ diine ñu gën ñu man moo ma gënal te jumaa ji buñ ko tëjee fu ñu nañ ubbi jumaa yi ubbi jàkka yi ñaan yàlla mbas mi yàlla delloo ko fi waaye suñ tëjee jumaa yi tëj jàkka yi te ubbi marché yi ma ne bu ñaanee yàlla yàlla du nangu kon nag mag yi la ma waxoon démb rek boo tëddee nelawal man daal maa ngi lay ñaanal lu ma la nag lu ma la nag ndax su ma la tuutee sama bopp la tuuti li des mooy li nga xam ne moom laa ci toog mooy eh, affaire yi jàkkee ak jumaa yi comme solution boo xam ne nattuwaay boo xam ne moom ngeen bëggee ñu doxalee ko ñu doxalee ko ko. te it wax dëgg yàlla am xolof jaay am na nu wax nee na songul sa taar nga bëgg. ku ne la songul sa taar la bëgg. kon nag léegi ñun bëgg nañ ñu ubbil ñu jumaa yi ubbil ñu jàkkee yi seet leen ni ngeen ko bëggee ñu ñu def ñu defee ko ko. taxawee ko ko euh, matee ko ko bu ñu ko defee danañ xaar suñu bopp xaar réew mi loolu daal mooy li nga xam ne moom laa ciy teg yow mag yi bëgg naa nag mu bañ a yàgg mu bañ a yàgg mu bañ a yàgg jumaa yi ak jàkk yi nañ ko ubbi ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ko jëm may def yaa moom di la ko santee di ko gërëmee di la ñaanal dama la waxoon ci suba rek moom laa yàlla waxati incha allah ci kaw rek ci kaw rek léeg-léeg fi nga jàppale Macky te gis naa tànk yi nga koy jàppale gis naa loxo yi nga koy jàppale réew mi yëpp gis nañ ñu ngi koy jàppale loolu yëpp maa ngi lay ñaanal mu sax te yàlla nag musal la ci gémmiñ boo xam ne dafay yàq diggante yow ak yi te parce que am na lamiñ làmmi yu bon waaye lamiñ yooyu yëpp yan yàlla taxal nañ lamiñ yooyu téyel ko incha allah yàlla na ko def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu